citoyen dëkk ci dëkk bii di di remplir suñu devoir de citoyenneté alors que ñun ñuy xeex loo xamante ne nii xeexu noble la pour askanu Sénégal man cee jëruñu booba ba léegi mënuñu am kenn koo xamante ne nii dina ñëw wallu suñu ci li nga xamante ne mooy xeex bi kii nga xamante ne moom la ñuy euh, xeex la muy société nouvelle ville euh, na xam ne moomul Sénégal li muy def nii di mën a euh, di manipuler di mën a nit ñi pour ñuy attaque wala ñuy xeex ak askanu Sénégal tey dañu pare woon ne match bi dañ koy fin euh, yëg gi ko euh, kilifa yu bees yi yëg moo tax ba ñoom li mu li ñu namoon tey euh, mel na ni sax xaw nañu ko gàntal tey li nekkoon mebetam mooy li nga xamante ne nii moom la ne moom moo ko moom muy cent dix hectares tey dana woon da ciy teg ci loxo ci nii wala ci naa looloo tax nag liggéeykat yëpp ñun ñu da ñu booloo nekk benn wane ne fii nga xamante ne fa lañ daane suñu doole kenn du jóge fële ne di ñu newal doole pour war koy mën a jël